السلام عليكم ورحمة الله بوك جلتي بوك طالبي بوك جسبرا بي تي ديغلو خليفة العام لطريقة الخادرية شاه البكاي ابن شاه البكاي أيده الله ونصره ولكن ديغلو كيغا خمني مموي شيخ سيدي المختار الكنتي دي خليفة شيخ بو محمد كنت سندوم جيني عبد الخاضر جيلاني كنت مولد يغل قديب ليلة القدر بمفاسية ديف فرانس Paris incha allahu rabbi mu war a nekk samedi di le 23 avril 2022 bi mu war a amee incha allahu rabbi ca Paris rue 10 général Humbert 75 014 Paris porte de Vanves ligne 13 mu war a am incha allahu rabbi ci samedi bi mu ci def laylatul qadr war a nekk incha allahu taala démarrer à partir de vingt deux heures mise en place vingt trois heures ba fajar incha allahu rabbi ngeen di am ay causerie ay waxtaan ci diine ak salaatu ala nabi ak njàngam alquran ak tagg yont bi sallallahu alayhi wa sallam ba fajar ak wax ci jaar-jaaru saxaaba yi cheikh bu Mohamed Kunta mag ñu baax ñi fa tabarakallahu ba fajar ak jàmm kon cheikh Abdul Xaadir Jilaani Kunta mi ngi leen di woo mbokki France ak li ko wër ci laylatul qadr di war a nekk samedi bi nu koy def foofu incha allah ca France à partir de vingt deux heures ni ngeen ko gisee ci adresse bi macha allah